Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. njarmay lenge njulo manjaay njarmay lenge njulo manjaay njarmay lenge njulo ndombaay asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen suñu cheikh internet yi nekk fii si Sénégal ak si diaspora ne ko annoncé woon ci fan yi weesu plan international ànd ceeg EMAD di xeex Covid 19 mu nekk loo xam ne ne mun nañ ne bataayu askan bi yëpp la war nañ leen ko ci ay vidéo yu weesu dugg nañ fu ne ci askan bi tey nag ñu ngi fii Caaroy Jidda Kaw ñoo seet si monsieur le maire waxtaan ak moom ak ñi mu àndal. ci ñoom noonu lañu gisee tey plan de riposte bi nga xam ne ne moom la EMAD teg ànd ceeg plan international dañuy bàyyi mu nuyoo moom nag jox na parole kàddu gi euh, madame Sy dañ koy bàyyi mu nuyoo. bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne contentement la tey ñu taxaw fii wax ci turu Djiddah Thiaroye Kaw xëy na nag li may wax lu bari damay bàyyi maire mu continuer mais di wax ne rek. Djiddah Thiaroye Kaw mu ngi taxaw depuis le bi di xeex lii nga xamante ne mooy pandémie bi fi am muy coronavirus mu doon loo xamante ne tey waxuma Djiddah yi Kaw kase mais àdduna yëpp dañoo war a jug xeex ko gëm na it daa doon loo xamante ne lu existe la lu am la parce que tey dafa doon loo xamante ne gis nañ ne la plupart si au début lañ ko gëmoon mais dem nañu ba ay jëmmi jamono moment bi nga xamante ne tey effort yu bari ñu ngi ko ciy def nit ñi dañoo commencé di ko bañ a gëm que lan moo tax xëy na peut confidentialité bi mu am ci maladie ana nan lañ leen di fajee ak yooyu loolu la ñu bëggoon découvrir mais te n'est pas le donc dafa doon loo xamante ne nañ gëm ne lu am la nañ gëm ne loo xamante ne juguñu di ci xeex pour dara dañoo xam ne ne am na moo tax ñu nekk si donc dañ ci gën a taxaw gën cee xeex ngir mu jóge fi parce que bu ñu boolewee incha allah dafiy dañ. ma bàyyi monsieur le maire continue. incha bu ñu boolee incha allah dina fi dañ kon dañuy jox euh, monsieur le maire mu sànni ci ay kàddoom. voilà di leen gërëm bu baax a baax di leen sant bu baax a baax yéen waa Reubeuss ja euh, sargal leen dalal leen jàmm fii ci mairie Djiddah Thiaroye Kaw ak waa EMAD ak waa plan ñi nga xam ne tey ñoo fi ñëwoon ñu waxtaan muy discussion bu am solo ci li nga xam ne man jàpp naa ne mooy li manqué ci plan de riposte bi nga xam ne gouvernement bi teg na ko fii depuis ñetti weer ñuy xeex contre le Covid 19 la ca manqué foofu lay tàmbale moy askanu ci bopam xamni ñom nous ñoo wara jëgul seen bop xéxal seen bop Covid bi à travers un changement de comportement qui intègre la vie avec le virus comme ni ko président Macky Sall waxé dans son dernier discours lool nak du nous xamni parce que lu bess la Ça yu amé lu bess rek day laaj une un ajustement comportemental de l'individu te fii surtout que nous dafa am ñaari volet mais ben ci volet moy askanu ci boppam ñu war à travers leur parce que man sama comportement sama attitude day influer sur la transmission de la maladie kon au-delà de ma responsabilité personnelle dafa am une responsabilité collective de ñun ñi nga xam ñoo bokk territoire di dund nan lañu mëna mën nan lañu mëna entre ñun tout en ayant le socle social bi nga xamni mom moom lañ yàgg mais ñu intégrer ci ay changement yo xamni day tax ba virus bi ni mi ñu man d'une personne à une autre mais d'un groupe à un autre parce que si on prend le cas de la prière collective à la mosquée ce n'est plus la question d'une personne c'est la question de tout le groupe qui doit adapter son comportement à un nouveau mode de vie Moi tax ma ni de loo xam ne nit ki là mais d'ailleurs une partie bu qui ci nit une partie bu qui ci communauté bi parce que ni maladie bi de pour nag ah alhamdulilah dañu cee fekk dañu cee parce que nous, bi ñu le comité local Covid 19 DTK président imam yi moom la ñu ci imam parce que nous estimons que la maire mën a wax ak président imam euh, ak l' ensemble des 62 imams de Djiddah Thiaroye Kaw ka ñoom bañ defee seen kuréel fal kenn mu jiite leen peut-être message kooku moo gën a mën a pertinent ñu ab ñu abi ci peut-être avec les ICP le contenu technique de ce message ñoom ñoo dem ci imam ya waxtaan ak ñoom pour que imam yi jël ko en charge ci si nañu jëflante ak fidèles yi ñoom ñoo ko waxtaan ak Euh, ñi yor daara ya parce que ñu yor daara man adapté seen comportement daara par rapport ak la situation nouvelle et cetera yu mel noonu la ñu fekk ñuy def ñoom waa EMAD ñu indi seen xam-xam indi seen expertise indi seen ay moyens dolli ci moyens yi nga xam ne moom la commune de Djeddah ko mobiliser woon pour que ñu gën a mën a euh, euh, rendre efficace la lutte que nous avons déjà entamée depuis trois mois contre le Covid-19 kon ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax. la bi ak générosité bi euh, moom laa que a ci télévision en tant que maire vous mobiliser les jeunes de sa commune tailleur de confectionner un masque pour distribuer ko la population Je vous boobu vraiment naw Je vous jour boobu au fond de mon cœur et je me suis dit si ñëpp defoon comme moom comme moi birmi dina am lu mu comme résultat donc monsieur le maire merci ci accueil bi mais merci ci action yi nga posé pour tes populations pour ta commune depuis bi fi pandémie bi nekkee ba parce que nous ñëpp nga pas defal donte dans ci commune bi exemple bi def na tâche d'huile te xam naa ne am na jeexit ci population yi soo ko defuloon xëy na tey dina ñaaw lool mais Moussa Diakhaté laay bàyyi mu wax au nom de EMAD ndaxte moom it xale mu jox dañuy jox parole bi Moussa Diakhaté mu wax ci au nom waaw wax ji mën na bëri mën na bañ a bëri sax parce que dafa mel ni yi lay wax ji ba maire wax na ko comme niñ ko waxee rek li xew tey lëmbe ci xeex bi mooy li jaaxal ñëpp mooy les cas communautaire cas communautaire su amee nag la réponse doit être communautaire loolu la EMAD comprendre que ni comme état.

xam discours bi ñu wax stéréotypé le discours bi ñu war a wax askan wi ndax galañ gu nekk ak ndënd bu muy tëgg gox bu nekk ak discours ba fay jàll bi ñu demee nag buntu kër gu nekk itam ak borom buntu këram bi ñu ñëwee seet si le maire bi nga xam ni bi ñu seetaanee ci télé gis nañ ni moom comprendre na ni dañoo war a sukkandiku ci soupape yi au plan local pour accompagner les populations dans la sensibilisation emat ci li muy def ne itam naa ñëw jidd caare kaw ndax itam ànd liggéey na nga ki ngay liggéeyal bokk ngeen bokk jikko ndax maire bi dafa ànd ak EMAD bokk jikko maanaam ku nekk communautaire pour ñu xeexandoo ko loolu moo tax EMAD ñëw ànd ak plan international dem attaquer les populations war a dugg ci cinq quartiers mais ub ub la communication au niveau na daal maanaam ca xol ba lañ bëgg dem wax ak borom kër gi mu yee njaboot gi njaboot gi yee xarit yi koñ bi wu dëkk bi aaru réew mi jëm ca kanam kon donc une phase bi au lieu mu une dimension verticale de haut en bas de une dimension horizontale dem sur les personnes cibles les personnes influentes jox leen le discours yom na nga ni porter un masque mais il faudrait aussi ki koy wax mu conscient ci enjeu pour ko porter c'est l'enjeu le challenge de EMAD partir de la cellule famille pour atteindre le Sénégal dans son entièreté afin de combattre coronavirus dans une approche purement communautaire ce que nous ñu fait aujourd'hui fekk chemin koo xam ne dégg nañu déglu nañu fekkoon ko mooy mu nekkoon ci waar bi ñu boole doole yi c'est seulement dans l'unité que chacun pourra faire sa participation pour l'intérêt supérieur de la nation et pour un Sénégal sain avec té à la salaamaaleykum ñoo ngi nuyu bu baax waa Reuveuss eh, TV di wax ni man maa ngi tudd Mokhtar Seck nekk eh, plan international waaye ci bureau bi nga xam ni moom moo nekk eh, ci banlieue bi tey nag ñu ñëwoon ci commune de Djiddah Thiaroye Kaw di rencontrer maire docteur Cheikh pour waxtaan ak mom euh, ci projet bi nga xamni mom lañuy wax and aar aru projet bobu nak euh, bo déggee tour bi alors da fay daldi dal xel parce que ñepp ne xam nañ ni bo né and mbolo la mais bo né aar kenn ku nekk yow ya wara jël ay matuwaay yi nga xamni mom mo war mais so né aru kon donc da ngay ar ñepp mais li am solo ci rencontre dañuy ñëw fekk maire bi déjà li nga xamni mom la projet bi indi ñu fekk ko ci kon xel dina dal xel dina dal euh, lu tax xel dina gën a dal mooy su fekkee da nga ñëw bëgg a liggéey ci quartier bi euh, nga ni damay liggéey ak kuréel ya fa nekk te kuréel yooyu ñu xool xam ni kuréel bu ci nekk am na benn pàcc boo xam ne ci lay yëngatu ci wàllu développement kuréel yooyu nga lëkkale leen lu toll ci euh, fukki kuréel wala yu ko jige parce que kuréel yi ñuy teg mu doon ay ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu Euh, feebar bi nga xam ni euh, moom moo lëmbee réew mi lëmbee àdduna bi donc soo leen boolee ñun am nañu yaakaar ni euh, tàggat leen boole ko ak expérience bi nga xam ni commune bi am na ko yaakaar nañ dina mun a jur ay njariñ parce que xale moom moo mun a wax ak xale mag moom moo mun a wax ak mag mais imam aussi moo mun a wax ak askan bi waaye jigéen nag mun na wax ak ku nekk xale mag képp ku kilifa ñëpp mun na wax ak ñoom comme ñooñu boo àndee ak ñoom di xex li nga xamni mom lañuy wax coronavirus am nañu yaakar ni euh, ndam liñ ci bëgg dinañ ko ci am kon lool rek lañu amone euh, euh, ci luñ leen di wax di wax ni plan international EMAD ak jidde caaray ko en tout cas pare nañu parce que gis-gis ci ben la yoon yi nga xamni aussi xal nañ ko mun nañ wax ni ñew ñep and nañ nañ nañ ci jaar kon yalla mën nañ ci defal ndam ci dir bu gatt lool la amone ci lumay wax ci leen gëreem di leen sant njar may lenge njulo ma njaay njar may lenge njulo ma njaay njar may lenge njulo ma njaay naawo naaw naawori ndomba naawo naaw naawori ndomba jokk leen ñun naawori ndomba na tengre ya gën a cëb paaka ba doomu ñu ko mënoo Reubeuss TV mooy suñu télé la chaîne de la vérité tasaare leen ko